jërë ngeen jëf mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen jaar bu baax a baax di leen wax ne ñoo ngi fii rëbës seet si nga xamante ni mooy double moteur mu war a bëri la set moo ki nga xamante ni mooy Quench tey nag mu ñëw def open press am tey ñëw seet si ko fii mbokk yi gis ngeen nit ñi génn nañu ambiance na fi am ñu bàyyi double moteur mu def ay démonstration am tous ñu dëgtal leen lépp loo xamante ni mooy fi am Dakar Midi Wassare Lamb asa ñu dem Saliou ñu déglu ah. ekiri rëbëso. Eh, mbay balla oh. fii nga juddoo yow fii nga yaroo duubul woy naa la rosa rosa yee yaa bu sa bu sa loolu waxu mbër la dimanche yaakatul wax jarul muy bëri waxoon naa ko dama koy waxaat sequma ak moom wax ju bëri li ma seq moom mooy arbitre la ma duma ko daan ko billaay walaay waaw li ma seq ak moom mooy i bi la ma duma ko daan ko waaw de yàlla na ko yàlla may jàmm ma jàmm ba lépp dina leer wax loolu lay wax la lamb moo ñu boole ñu war a bëree. dañoo def suñu ay preuve ba lamb boole ñu war a bëree na bàyyi wax yooyu noonu. génn Lansar duggaat Lansar. waaw lamb moo ñu boole waa Lansar rek waaw lamb moo ñu boole ak ñoom ñuy bëre ak ñoom rek du dara waaw. kilifa gi nuyu naa. maa ngi lay ziyaara. yaa ngi ci jàmm. sant yàlla bu baax a baax ñu gis seen doom ñoo def open press di wàcc bés bu rëy. tey nga ñëw teew lan moo fa waloon sa teewaay. waaw xam nga suñu amee champion. ci suñu koñ mu nekk xale bu engagé wu bu déterminé wu bu bëgg Dakar Plateau xale yi bëgg ko su amee bës ñun ñëpp dañu war ñëw teew ngemb ko jox ko raaya Dakar Plateau gunge ko ba mu am victoire loolu rek moo waral suñu teew. nga ko gisee bi nga dugg see. mais dama am mbégte parce que il est en train d' offrir de la joie aux populations et aux enfants de Rebeuss te tey jii xam ne suñu koñ yi li xale yi manqué mooy loisir. ak détente stress bi ak pression bi dafa bëri ci capital bi xale yi dootuñu respirer amatuñu mbégte et loolu day indi violence ci seen dënn mais lu mel nii da leen di décompresser day tax ñu joxante loxo xam ne am na ñu benn objectif donc jàngale ci ñoom moo tax ñun mag ñi dañu war ñëw gunge leen ñaanal leen. lan nga koy ñaax moom mi nga xamante ne day dem jongante ji. mais li ma ko ñaax wees na parce que li ma war def yëpp def na ko dugg na xalwa entraîné na mag yi ñaanal nañ ko donc lu ñu koy def daal du du ñaax dañ koy yokk ñaanal. koy mu dem jëli ndam li tey. na dem jëli ndam li ñëw Dakar Plateau nekk en liesse. est-ce que dina yomb. Quench lay dajal. waaw xam nga Quench. Euh, jàmbaar la. jàmbaar la moom it mu ngi def lu mel ni li double moteur di def ca koñam mais xam nga sport jogante la mais foo la ax kaf ax ree. li ci daanu rus. waaw ku daanu di nga rus mais ku daanu da ngay laxasaayuwaat. ku daanu da ngay laxasaay waat ndax ndama nga ci kanam Saint-Exupéry moo ko wax mu ne le vainqueur ki fête sa victoire d'hier ñàkk na le vaincu qui prépare sa sa victoire de demain koo koy vainqueur bi kon boog ñoom ñaar jëm ñu ngi leen di ñaameel mais kii lañu faral ndax kii mooy suñu doom kii mooy waa Dakar Plateau dañu bëgg mu indi ndam li ñu feet feet bu gën a rëy feet bi kontaan nañ ci yow mais kontaan naa ci moom kontaan naa ci yow itam jërëjëf. champion nuyu nañu. maa lay fay. nakamu. lépp jaam. ça bien. ak ngeen di waajalee combat bi ndax xam ngeen adversaire bi jël muy koñ. waaw double champion la di sunu waay sunu xarit ñu bokk koñ. mu dëkk Rebeuss ñu dëkk Medina benn la ñooy ne ci géej gi chaque jour ñu ngi koy ñaanal yàlla defal ko ndam rek. waaw kese. mais moom koñ nee na combat bi du yomb ci yéen. non benn yombut. muy man ak sama morom ak keneen ak keneen a ci yam ku ne ci da ngay sabablu rek ñaan yàlla mu yor ndam mu may la ndam moom liggéey na li mu war a liggéey ñu ngi koy ñaanal yàlla defal ko ndam rek point na ko jox cër rek def li mu war a def ëpp ko ëpp ko doole dàq koo bëree mooy loolu non amaat non amateurs yi moom yaa ma gën a xam ñoom moom làmb chaque jour ñu nga fa combat bi lamb ji amul mën a bëre dàq a bëre yàllaa lay dimbali nga bëree daan dem sa yoon leneen amut. mais bu ñu li bëri na signature contrat xaw ma boog xaatim. mais coow li bëri sa digganteeg Zarko lan la. Zarko champion la doon grand frère may ñu saat il faut coow li daa fekk xale buy dem yoonam mu may ko saat kon il faut coow li bëri quoi. mooy loolu. Zarko nee moo la fit moo la gën a doon der. moo la dàq bëri. mais loolu yëpp na jël ba suur ba te dama koy daan ci kàttanu yàlla amut leneen ci lépp laa ko teg. loo xalaat rek teg naa ko. mais gis nañu yaa ngi jógee géej léegi ñëw fii. non déggoo li bu dee wàllum entraînement ak doole moom na dem toog xaar quoi. Ah waaw. loolu sama yëf la loolu sa supporter ñu waaj rek ndef liñ daan def ma ñëw jàpp ko daan ko dem sama yoon point tay tay daa aye de bawol aye pour ci jàpp dañ lay daan dem suñu yoon loolu sa si duub ñu koy ñaanal yàlla defal ko ndam te dina am ndam insha allah waaw ñu lay bëggee jaajëf maay kontaan damay conseil borom baax la waaw di nga ñaanal yàlla ndam rek xalaat ko combat combat ak Quench gaawee comme ni sa combat gaawee démb incha allah rabi champion la jàmbaar la bu baax incha dinaa la laaj lenn kera am na loo xam ne am na sa open press oh. open press nga pare press bi di xaar nga wax nga dem gaay yi mujj a dem ñoom tamit mu indi benn saar ñàkk a déggoo loolu loo ciy wax tey presse bi. loolu la ñuy tudd jégalu ñun presse bi ñu lañ fi nekkal ñoom lañ fi nekkal. ñu ngi jégalu bu baax a baax presse bi. loolu noonu nekkul suñu sago naka dem mbooloo bi ñoo bëri woon. dëgg bu bëri woon ay rumbaay. dëgg la moo loolu mais ñoo ngi jégalu bu baax baax. macha allah mm-hmm. kontaan ci yow. jaajëf jaajëf jaajëf. moom naa. fay naa la fay naa la. ci sant yàlla bu baax. mais félicitations. waay waay. masa euh, gis nañ li nga maa lay wax naa la gis naa li nga mobilisé nga ne ma dinaa ko wan ne dëkkuma fi lu waral wax jooju. non boo gisee nga xam ne stade bi man man naa kon caaxaan waruma démb jàpp rek daan moomu war waaw. mais gisee démb confiance bi nga andi yëngal stade bi bañ na xanaa moom moo moom moom stade bi. waaw boo xoolee boo xoolee yi nga xam ne tey stade bi ñoom ñoo ko lu métti war a jibbee ndàmbali. mais ñëpp la mais nga ñëw démb la woon. waaw maa ko a xale maa ko a xale waaw. mais combat bi fan la la mën a yóbbu victoire. a combat bi fi mu mën a yóbbu bari na. ndax euh, su ma su ma ñàkkoon lii yëpp du ma ko am instant yi dama ko am moo tax ma am ko yàlla na yàlla julli si turaar rek. bi ma la fekkee nga toog nee naa la demi final la ak final nga daan demi final lan sa xel ci lu mu nekk. non sama xel moom xool xoolul ñaar ñeent bëre grand combat bi sax. xooloo leen. daay xooluma leen. ñoo nekk sa kanam. waaw ñu ne sama kanam. bari na na promoteurs yi ñoo ngi ñëw suba ak ngoon démb ak eh, démb ak tey ba léegi promoteurs yaa ngi woote waaye képp ku ma jox rek ma jël ko. ma na naa am na ne sa xel. non képp ku ma lamb boole rek ku ma lamb boole rek ma jël ko. kontaan naa ci. incha allah merci. ci loo ne. maa lay fay yëkkatu maa ngi nii. waaw. ka ngeen ñëw jàmm. saa yoo paree rek envoyé naa la message sax mais liiruloo ko. waaw ah, loolu am na. waaw mais gars yi ma ñu bëre. dama bëgg ñu jël ma ñu bëre. comme kan. non loolu bu ñu déggantee dinaa la wax ki ma bëgg mu toog ci bi. ki ma bëgg mu toog ci plateau bi. sa teewaay bi. suñu teewaay fii tey suñu moo xew la double moteur. maam Bamba nga xamante ne si maanaam euh, xolam moo rafet ñun dañuy xewle ba Colobane mu bàyyi ay itam ñëw kon dañ koy ñaanal yàlla suñu borom mi nga xam ne moom moo am ndam mu may ko ndam ci diggante ma Collins si mu daan ko jël bu am bëri wérante barke si Tuubaa yàlla ko mbaaxam wolu ci combat bi ñu koy ñaanal ndam ci barke si Tuubaa kontaan nañ voilà kontaan nañ bu baax plateau lañ dëgg si taan bi lañ dëgg kon suñuy adversaire ñoo nekk ci banlieue bi ñuy bëreeg ñoom moo tax du ñu bàyyi xel sax ay dugg ci écurie génnaat ba dugg ba suñuy ñoo fa nekk ñuy bëreeg ñoom rek waaw laa moo ñu boole ñoom ñu war a ñoom parce que ñun waa côté bii du ñu bëri suñu parce que boo ñëwee jóbal président yi gis ñu fi nekk gis fi waa Bawol gis fi waa Fass gis fi waa Médina gis fi waa Gueule Tapée kon loolu moo tax ñun du ñu bëre suñu biir ñoo bokk ndey ñoo bokk baay kon waa banlieue bi rek lañ mën a bëreel loolu moo waral tey jii nii tamit fu ñu dugg rek mën nañ fa duggaat loolu kese la. keroog ci signature bi ci biir Bantamba TV bi nga ne combat bi di nga am dina dina am xeex dina am bëri est-ce que mën nañ xaar loolu. waaw loolu lu leer la li ma waxoon laay waxaat rek ñun ndaw lañ préparé nañ ñu war a pare liggéey nañ ñu war a liggéey amaana li ñu pare pare wuñu sax pour euh, combat bi. pousse Quench bu jëfee si ñun ñu teg suñu ngeen bu bàyyi bëree parce que teg suñu bëri wax naa la ko sànq si biir wax Babacar booba léegi moom mi ngi génn di wax gisoo ñu fenn ñu génn di wax daa am fu ñu teg suñu bët wallaahi azim du ñu tëdd sax boo koy xalaat ñu koy sikki sàkk moom te la set yaagatul la set lay leer incha allah rabi dañ koy ñaanal jàmm nag ñaanal ko suñu bopp ba la set incha lan mooy gagné combat bi que Double xam na niveau combat bi muy bëre maanaam niveau ko mën xam nañ ko bu baax. Ah. xam nga moo tax préparation bi sax bokkul ak yeneen préparation yi ndax combat bi ku ne xam na ne yàgg na def na at ak tegu presque deux ans ñu des si ay sacrifice nag laqatu sunu ruux daj si ay coono def ci xaalis bëree bëri ñu ci profité tamit di ci santaale ku ci mel ni Abdoulaye borom Somone parce que tamit diiran bi ñu nekk foofu noonu yëpp mu ngi ñuy taxawu. lépp lu war si ñun manqué wuñu nekk technicien ay conditions yi bien di yëkkati xaalis weex taal di ko def si ñun ak maire somone bi Bokar Sadj xam nga ak ku ci mel ni tey jii nii euh, Cheikh mi aluminium bu nekk somone mais moom nee na da nga dem ba somone dëkkam da ngaa ñëw ba dëkkam laa ko waaw loolu lay wax la rek fii làmb ñëpp xamante fii ñëpp xamante man li ma xam bari du ma ko wax yaa ngi dégg parce que làmb ñëpp xamante yooyu amul chance somone ay nit laa ko am yu baax yu may jàppale taxaw ma ma gis niñ ma taxaw ci combat bi jàppale ma leen di woo nag ci combat bi aussi tamit ku ci mel ni seen monsieur le maire ku ci mel ni Cheikh Fall Aluminium ku ci mel ni euh, kii li euh, mu transitaire. xam nga woon est-ce que nga ni ki ngay bëreel xeexkat la. est que yaa ngi bàyyi xel xeex bi. waaw pare nañ ci lépp ñun liggéey nañ ñëpp ñu war a liggéey ci côté xeex bi ñu côté bëre bi pare nañ amuñu dara lu ñuy sikki sàkk ci moom ñun laajuñu ko dara leen lañ koy laaj mooy na dëggal boobam taxaw. loolu gën lañ ko sant ci combat bi sant ñu ko leneen. boo gisee ku leen si nee na ku leen si nee na. yaay ma ñëw ku leen si nee na mobilisé na 40 car. la mobiliser yi war a liggéey baax ñi. monsieur le maire loolu yaa li ñuy wax du bëri. suñu papa bu xam ne gën a ngi moom dañ koy sant ko. futur mu ngi nii taxaw. yaa ngi dégg tey bu ñu mel ni ay Baba Diop si boo nee mobilisation loolu la fekk baax ñoom nag benn message boo xam ne daf ñu métti ñun ay doomu Dakar Plateau lañ ay doomu dëkk bi lañ ñu nekk fii ci gox yi suñu maire Alioune Ndoye bëri naa onze combats musuma may cent franc ah? waaw loolu dama koy wax mu koy dégg wax naa ko moom nag mu koy dégg jàkkaarloo naa moom wax ko mu koy dégg mu ne ma dina ma jox rendez am ñu boole si ay nitam ma leen di woo mais dañ may dawal fem ndax man du ma toog ci ginnaaw kenn di martaatu nekk Dakar Plateau juróom bi yoroo bi nekk ay doomu gox yi nekk ay porteur de voix man ci réew mi dara kon ñun suñu jugee ñoom dañu war a dooleel ñoom dañu war a dooleel yaa ngi dégg donc dañu war a dooleel mais gisuñu suñu bopp ci maire bi Aliou Ndoye man gisuma sama bopp ci moom yaa loolu dama koy ko su ma jàppale dama war a jàppale su ma jàppale dama a jàppale noonu doomu dëkk bi ñii nag di ma jàppale ñii di ma jàppale bu ma leen yemale mu laata ñu def ko incha allah en tout cas ñun sax ñu koy tëral lépp lu may am ñu ñoo koy def ñu ñooy xale bu ñoo koy def waaw. waaw. ñëwal rek. waaw. waaw. nga ñëw yaakaar ni yaa ko mën. waaw danga ko mën a béy est ce que du dugub boobu lañ la gisaat bii di ñëw est ce que yaa ngi suuf que ni. loolu ñaanuñu ko yàlla loolu ñaanuñu ko yàlla. waaw loolu ñaanuñu ko yàlla ñu ne xale lañ te xale du juum ñaari yoon. waaw loolu nag lu mënul woon ñàkkal suñu carrière. waaw fàttali nañ ko ba ba léegi ñuy nekk suñu yoon di bay suñu waar te am naa yaakaar ne tamit. màgg nañ ci làmb bu dee as tuut ndax am na ñu ne suuf ginnaaw ñoo xamante ne dañuy doyloon nañ ñu dañu ñuy teg ci pot kon am nañu yaakaar bu baax a baax a baax ñu mais ci noonu la sax doomu ndey ñëwee El Hadj Keita waaw may profité di ko sant El Hadj Keita waaw muy doomu Médina waaw di Neymar la musique sénégalaise nekk nit bu baax sama waay di ma jàppale ku ma yàgg taxaw di ma jàppale di ma defal lu nekk di doomu Médina di doomu Ndakaar di doomu àdduna ñu koy ñaanal may kontaan ci moom bu baax a baax a baax di ko sant di ko gërëm. salaamaaleykum. sama teewaay. sama xarit. yàlla dafa def man ak moom depuis ba mu nekkee double moteur ba léegi dañuy jokkoo dañuy woowante téléphone dañuy waxtaan téléphone saa yu amee combat daf ma koy wax man tamit lu may def da ci dugal loxo moo tax tey ma teew bi pour dooleel ko wax ko ni RH Keita ci ginnaaw double moteur yàlla ko yàlla may loo koy mooy ndam waaw dañuy profité tamit di di sant suñu président Saliou Diop di koy sant bu baax di leen taxawaayam waaw di sant sëñ Sidi Mbacke alxuraan bu baax a baax borom jàmm gën si gàmm mbaaw alxuraan ñu koy sant bu baax a baax a baax borom yàllaay kese waaw xam di sant tamit ku mel ni sëñ Fallou Maraké di sant sëñ Abdou Karim borom Bakari Malawa ñu koy sant bu baax di sant suñu sëriñ maam Thierno Mbacke maam man Thierno Mbacke yi ma am ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax. di ko gërëm yaa ngi dégg man Thierno Mbacke yi ma am ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm suñu sëriñ suñu yaakaar tey rek rek sant borom daaral mu fi Babou Laye Babou Thierno ñu ngi koy sant bu baax. dina la mayaale nañ taxaw dina la mayaale maire Sane ci kan waaw xam nga Babou Touré. di sant tamit di sant tamit Babou Touré parce que bu mu jàppee ba tey Babou la. ñu mel ne ñu sant ci kaddu ñu koy sant bu baax a baax a baax ba nga ñu sant suñu kaddu parce que moom. moom teewul suñu papa Diop si te mu nga xam ne Diop si mooy suñu lépp. Seydou Diagne